يَشْكُرُونَ bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun واستعمل جوارحهم ومواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم أما بعد فيا عباد الله في بحر الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم شهركم هذا maa'uhu ahlaa min al-'asali wa ashaddu bayaadan min al-laban faman saama yawman min rajabin shaqaahu llaahu min dhaalika an-nahar fattaqu llaah yaa fattaqu llaah ibaadallaah wa akthiruu fiihaa fii haadha ash-shahri min as-sadaqati was-siyaam wa tazawwaduu fiihi min nawaafili al-khayraati was-salaati bil-layli wan-naasi niyaam wantahizuu fursata al-'umri fa ka'annakum bi fasiihatihi qad daaqat وبساته قد انتبع وطهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه, واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذاك عن ساق الجد عن ساق الجد الليل فإنها أنفه ما يجده المرء في الآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي عم فضله وعم منه النوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع ما له من الأصحاب والآل أما بعد فيا عباد الله qaala allahu tabaraka wa taala man kaana yuridu xarfa alaaxirata nazid lahu fi xarfi wa man kaana yuridu xarfa dunya nuutihi minha wa ma lahu fi alaaxirati min nasib fattaqu llah ibadallah wa asracu li anfusikum ma taxsudun wa qaddimu min alamali من العمل الصالح ما تجدون يوم يندم المقصر على ما يديه من عمره wa ma tadri nafsun ma sa taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut واحذروا أن تمر بكم بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم الذي عمل العمل الصالح فيها عند الله يزكو يزكو ويعصم فكما يضاعفون فيه جزاء جزاء الحسنات